asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki Sénégal di nuyu àdduna bi yëpp di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa xalifa général kullu murit mu yàgg fi sa wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp di nuyu waa Waarwi TV tey ñoo ñëwoon fii ci seesu mën nañu wax forum civil mën nañu wax APLT association Pastef liggéeyal Touba ñu am lu ñu war a weccante ak xalaat ak ñoom hmm, xam naa dañuy jox soxna si maa ngi tudd maam Thierno Dieng dëkk Touba di coordonnateur forum civil di président wu APLT association fu liggéeyal Touba. forum civil moom ci tënk ab euh, kuréel association la boo xam ne dañoo boole seeni xel ak seeni xalaat ak seeni doole. Euh, fas yéene jàppale population bi nga xam ne dañuy néew doole ci yenn euh, yenn doxalin yi par exemple tey loo xam ne état da ko war a nattal askan wi te mu leer na ne nit ki mënu cee joti ak ñi nga xam ne dañuy jël li ñuy wax ger corruption maanaam euh, li nga xam ne yow yoon moo la ko may nit laaj la ci xaalis pour nga joxe ko ak droit bi nga xam ne nit war na koo am ci faju wala ci jàng wala ci yeneen euh, ñu bëgg koo xañ ñun ci taxawaay boobu la ñuy taxaw taxaw bi ñu taxaw bi ñu ci taxaw nag càgg du càgge ne dañuy nekk ne ñun ay gendarme wala police wala ay attekat waaye dañuy alerter alerte boobu bu ñu fekk see ci loolu mën nañ ko accompagner ànd ak moom ba jàppale ko ci ni nga xam ne noonu lay def ba jaar ci yoon bi nga xam ne moom dina ci am li mu bëgg te du sonn euh, te mu xam ne li mu doon demandé moom mbiram la lu mu moom la loolu moom ci tënk mooy kuréelu forum mooy forom civil forum civil daal kuréel la boo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama moo ko tax a jóg. Touba moom li ñuy wax naan dëkk bu spécial la ndax booy ñëw sax dañ naan la brigade spéciale lépp dafa spécial yombut yomb na ndax ay nit ñu ñu ñu ñu xam dëgg ñu ngi fi ñu bëgg lu baax ñu ngi fi wante nag ki nga xam ne moom. lu mu mën a def day day day day jalgati kooku euh, moom fu mën a demit ci jalgati rek lay lay lay lay ndaxte euh, dégg naa benn kilifa bu baax mu ne xam na ku dul def lu bon waaye xamul fuñ ko dul defee maanaam dëkk buñ ko dul defee waaye nag moom xam na nit koo xam moom dara mënut tax ba mu def loo xam ne li lu ñaaw la euh, kon ñi fi ñi ngi ko fi yore dañ ci def suñ kemtalaay kàttan métti na waaye ñuy góorgóor bokkul nag comme ak dakaar Thiès wala ay yeneen région yi nga xam ne wala yeneen dëkk Afrique yi nga xam ne ma nga fa waa xam nga euh, activité société civile dadul bokk ak activité boo xam ne kooku politicien la parce que politicien waaw dama lay wax dama lay leeral rek dama ne activité boo xam ne nii politique da koo def ak bu société civile def dañuy wuute ki buy def da day indi télé woo rajo yéen xam ngeen li ma leen wax mais leen lii laay waaj a def euh, bu ko defee ñu jël ko yóbbu ko ñun nag suñu def def mën naa ne euh, dañ koy def te duñ ci indi yooyu par exemple tey am na jamono boo xam ne euh, wateelu ñu budget waaye ñun ñooy génne ci suñu xaalis laaj cotisation def loo xam ne nii lu amoon population bi njëriñ la ndax am na mbënd moo xam ne mm, jamaa jàppul ban mbënd mii ngay wax wala mële ngay wax. waaw bu dee mu ren mii activité boobu defuñu ko xëy na wante am na beneen bu ñu def bële nag moom dajale woon nañ suñu alal jël ay mat laa jël ay basang ay satala ay suukar yëpp joxe ko loolu sax xëy na am na yenn presse yu fa teewoon bii nag xëy na jamono bi contexte bi mu bi mu fekk Covid 19 bi ak yu bëri yoo xam ne nii activités yi dafa dakk moo tax neexul woon coordonné waaye teewuloon ñu ngi doon jël suñu tànk di nemmiku gox yi di dem ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy man di jàppale population moo xam état la moo xam yeneen daayira yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ñu fexe bay jottali population bi foofa ngir ñu mën a am suuf suñu sëkke wala ñu mën a am loo xam ne nii dana leen ci euh, mën a jàppale. xam nga ñun yoruñu kuréelu def-def mën na la association lañ boo xam ne dañoo boole suñuy xalaat. par exemple tey état moom la ñuy nattal moom moom moom alalam moom mooy def ñun nag ni nga man mooy ñu wax ñu euh, sa yitte moo xam ci ci ci section bu Touba la wala muy sec bu Mbàkke wala Jurbel wala fenn ñu jël suñu am am bi ñu amal suñu bopp defal la wante nag bu ñu xaaree ci dañoo war a génn budget bu mag defar tali wala ñu defar fan ngeen di waxe waaw kay xam nga ba tey dox waaw doxalin bi dafa wuute maanaam forum bu ñuy jël euh, bu ñuy woowee ci activité bu mel noonu boole ñu ci commission communal bi ñu bokk ci di xam information yi nga xam ne doon na génn ci euh, ni ñu doon séddalee ceeb bi beneen bi euh, activités yi ñu ci def commencement ba ba jeexital lépp dara umpuñu ci xam nañ lépp wante nit ñi am na ci ñoo xam ne neexuñoo waxal maanaam neexuñoo orienté wax leen ne leen lii mooy dëgg gi dañu bëgg rek ñoom liñ bëgg rek mu am maanaam liñ bëgg na am te bu ñu xoolee Touba euh, ñi ngi àpp pare naan la millions yi nit ak genn wàll ñoo fi dëkk état wu Sénégal Touba ci ci mbënd mi mu ngi fi joxe 37 euh, 586 ménages. nga xam ne sax jëlul ceer bi kon bu ñëpp bëggee taxaw ne dañuy am maanaam ñi ñi nga xam ne yooyoo nañ ko ñëpp buñ bëggee am du mën a nekk waxuma nag ñëpp ñëpp ne dañuy am léegi loolu boo ko dee boo ko déggee yow ngay boroom xel ne man kat xam nañ ne xam naa ne kat bëgg naa ci waaye comme fukk lañ jox damay jàpp ne man boo moytul du ma am da gis ne koo xam ne leer na ne ko ne moom warul am mu ñëw di réclamer ne dafa war a am loolu bokk na ci rëq-rëq yi beneen bi ci des mooy euh, am na ñoo xam ne ba nga leen leeral ñu wëlbati ko wax leneen parce que euh, suñu taxawaay ñun ci euh, ci ci ci liñ doon séddale mooy daanañu état joxe woon bi ñuy taxawal comité départemental bi am na su ñuy ndaw yu nekk ci département bu yu fa teew bi ñuy taxawal régional bi am na ñu fa nekk bi ñu ñëwee ci commune bi man maa fi nekk dem naa teew commission bi ni ñu ko composé woon mooy président président euh, communauté euh, mairie bi moom moo nekk président bi euh, ñu jëlaat ay membres yoo xam ne bokk nañ ci ñu jël société civile man ma représenté fa société civile jëlaat chef de service yi ñu bokk ci préfet bokk ci député yi bokk ci kenn ku fa tooyoon ci kuréel gi am nga ku la fa représenté bi ñu paree ñu éclaté groupe yi def ko six commission euh, commission bu nekk am président président ñun ñi ñu waxaat ñu ne ñu président commission bu nekk na ngeen tànn seen ndaw lu fa bokk ñu tànnaat kenn ku nekk ñu jël la dugal la ci benn commission ba six commission yi mat noonu la ko conseil communal de la jeunesse defee noonu la ko bàjjenu gox yi defee noonu la ko député yi defee ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi dem ci li li ñu njëkk def mooy ciblage dem wëri ñan lañ war a jox waxtaan ak ñi ñi bañ bañ mën a xam ne ñii lañ war a jox lii loolu moom bañ demee dañ koo delloo waat chef de quartier yi ñu toog chef de quartier bi moom mooy chef de quartier mu ngi fi ñu ne la wool sa délégué de quartier sa bàjjanu gox association jeunesse société civile jàngalekat loolu bu dëkkee ci ab quartier kay normalement war nañoo mën a xam ñi ko fa yooyo soo su ñu ñëwee wax leen loolu dañ leen di bàyyiwaat ñaari fan ñoom ñooy war a ñëw indiwaat ñooñu mais yow bu ma la waxee loolu nga ñëw indil ma ni ma kii mooy sama bàjjanu gox kii mooy sama sëriñ daara kii mooy sama nangam mu toog weddiwu ko population ba fa toog weddiwuñ ko ñun gan lañ fa ci misaal bi ñu ñëwee ñoom lañ bàyyee kàddu bi ñu ne ñu kii la kii la kii la kii la kii nga laaj mu ne waaw même fii siñ doon bind boo xoolee ci ci ci comité si village bi fu ñu bindee président fu ñu bindee chef de village ba bàjjanu gox bàjjee topp conseil te ñoo ñun tànn leen dañ leen wax yéen tànn leen leen bi leen tànnee li ñu leen wax mooy da ngeen di dem seet ñan ñoo yooyoo njël yi par exemple tey kat seen koñ bii téeméeri nit a fi dëkk waaye dañu fi indi ñaar fukki njël looloo tax ñu woo leen xam nga ñu ñàkk ñu ko yeyoo bàjjenu gox war na koo xam sëriñ daara war na koo xam jàngalekat bi war na koo xam keneen koo xam notable la ci dëkk bi war na koo xam te li tax ñu tànn leen it mooy dañuy bëgg bu ñu ñëw ñu am ci ak maandute ba mën a teg loolu ba buñ ko defee coow du ci am jox leen fiche ñu indi tur jox ñu carte d'identité ñu enregistré ko mu demaat su préfecture su préfecture validé ko ak mairie ñu doog ñoo indil ay bon jëlaat bon yooyu enregistré ko. ren moom màggal gi moom màggal gi mën nañ ne màggalu euh, Covid 19 la ndax dafa tombeek na euh, jàngoro joo xam dafa lëmbe àdduna bi ñëpp ku ci nekk li nga daan def am na ci ñuy bëree bëri surtout kuréel yooyu nga xam ne dañoo nekk Dakar wala yi dem ñëw nañ. siyaare si nañ waaye defuñu comme parce que boo xoolee sax ci biir màggal gi am na coppite yu ci am yoo xam ne gis nga xalifa bi ne cérémonie bi sax niñ ko daan defee buñ ko def tey joxe na ay ndigtal yoo xam ne ne kuy ñëw na nga takk masque nañ ñuy raxasu nañuy def yooyu yëpp ah diiru màggal gi ñu ngi koy jàllale kon euh, forum civil ñëw na siyaare si na ñu bëri ñëw nañ ci ñoom ndax ñu ci bëri nag ay waa Touba ñeneen ñi ci desit am nañ cofeel tubaa am nañ fi ay ay xarit am nañ fi ñëw nañ siyaar wante taxul bayu yu ñóot euh, ne dañoo toog rek bàyyeeku kii ñu rek ne dañoo dañoo dañoo bàyyeeku maanaam seen seen seen loxo mi ngi ci seen xalaat mi ngi ci seen xel mi ngi fi seen dara daal jógul tubaa ci misaal li ma la ko mën a waxee. réer <laughs> ji la ma association bi moom xam nga forum civil laa wax ne la association la léegi lii dama laa wax ne moom la ñoo bokk nu doxe waaw maanaam. ñoo bokk ay palin ñoo bokk ay doxaliin daanaka boo duggee ci biir rek da ngay da def te association bi nag moom moo jiitu ci man ndax ñun suñu récépissé bañ koy jot ñun ñu ngi commencé ñu ngi créé woon suñu association 1999 euh, suñu récépissé ñu ngi ko jot 2006 lañ jot suñu récépissé euh, commencé di def activité yoo xam ne yu jëmalee population bi ca kaw kanam la ak di jëmale dëkk bi li ci ëpp nag ci santé lañ ko jëmale santé éducation ak développement formé nañ fi ay nit ñoo xam ne dañ leen jàngal ni ñuy defaree ay eau de ay saabu ay fourneau loolu euh, ñun ñooy wut ñooy wut partenaires yi ñu ñëw ñu former leen ñu former leen bu ñu paree euh, ñu bàyyi leen ñu dem ak seen xam-xam waaw euh, man am na ci ñoo xam ne mën nañ leen teg ba boole leen lu mel ni ay mutuelle wala yu demee noonu pour ñu mën a jël financement waaye ñun amaguñ doole boo xam ne dañuy créer dañuy wut suñu fond boole buñ ko amee nag moo gën ñi ngi ci nag wante amaguñ ko euh, beneen bi mooy euh, noonu ñu formé jigéen ñi am na ndaw ñoo xam ne ñi ngi liggéey ak ñun ci domaine santé dañ leen yóbbu ci ay formation ñuy def ay comme formation paludisme fexe daal tuberculose ak euh, yeneen feebar yi nga xam ne day man di wàlle ñu fexe ba ñoom danañ ci xam man cee jariñ seen euh, seen seeni seen i mbokk ci bu ñu gisee ne tey kat dem naa ci formation paludisme bi xam naa ne sibrus si am na ñaari euh, matière maanaam ñaari nuñ koy waxee mooy sibru bu bi ëpp ak bi bi bi bi nga xam ne moo gën a néew kooku tey automatiquement bu ñu ko jàngalee loolu ci ci formation bu ñëwee seen kër su gisee xale bi yaram tàng rek xelam mën naa dem ci ne waxoon nañ nañu wax xale bi yaram tàngee naa ko yóbbu hôpital ki nga defal formation ci tuberculose bu gisee koo xam day sëqat lu mat fukki fan ak juróom day wax ne ah man jàngaloon nañ ma ne naa euh, dem mm, yóbbu kii kër docteur parce que sëqatam si kat yàgg na wala su ko mënul yóbbu mu wax ko ko mën a dem VIH euh, sida xam nañ bu baax bu njëkk ne bu ñu fiy dugg fii dañoo amoon problème pour def ko wante xam nañ baax na léegi jàngoro yooyu nit ñi dañ koo am te nekkuñu euh, nekkul ne doomu jàngoro bi da leen dal direct maanaam feebar bi da leen dal ba gañe leen waaye doomu jàngoro bi mooy dox seen yaram léegi dox boobu muy dox seen yaram nag ñun am nañ partenaires yu ñu ci liggéey yoo xam ne dañuy fexe ba defal leen saa bu fekkee ne am nga ko ñu teel laa orienté teel laa suivre nga man di faju te doo ci am benn jafe-jafe ak sa njaboot. bëgg a wax sax laay wax mooy euh, Touba ñu gën a kiyaat doxalin bi ci wàllum saayir ne sëñ bi moom fàggu na lépp ci baatin moom dara du fi yàqoo wante comportement yi fi nit ñi amee nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax parce que ñun dey yàgg nañ fi ba ñu nekkee ay tuut tànk suñuy waajur nekk fi juddoo fi ñu nekk fi màgg fi xam dëkk ci côté yëpp ci Touba wante am na léegi doxalin yu ñu fi gis yoo xam ne euh, kilifa yi moo xam autorité étatique yi moo xam kilifa diine yi war nañ cee gën a bàyyi xel benn euh, tey ñun bu njëkk boo mosaan jaar diggante jumaay Tuubaa ji ak pencum daar minam jàpp pencum kër Sëñ Suwaybu aw daal doo ko fa daaw sol kap ñu mi woo koo sol dawoo dawal welo sax boo ko daan dawal dañu ñu daan wax naan bu njëkk dawal ko tu mooy xambkatu mooy xambkatu mooy xambakatu euh, sawara yooyu lañ ñu daan wax parce que yooyu yëpp mag ñi li ñu ko daan waxee mooy dañuy bañ nit ñi daan ci dem léegi nag ñu dem ba gis ne copp ki léegi da gis kap sax dañ ko duggaal léeg ci biir barab bi te boo ko même boo ko waxee ki koy ki koy ki koy bëgg a dugg day dangay ngay gis mu am beneen comportement ngay dem ci biir jumaa ji ci wetu barabu Sëñ Tuubaa lu fa jullee gis koo xam day toog ak mbaxanaam barabu Sëñ Tuubaa laa toog ak mbaxanaam kaalaam maanaam di wane ni moom dara la daal te yaakaar naa ni kooku ku fi def dara ku fi doon dara ku nekk moom moo la def dara ak foo mën a noo mën a toll nag euh, beneen bi mooy soo ñëwee ci biir mbedd yi nga xool li ñuy wax suñ transport bi jaarul yoon jaaru yoon masul jaar yoon moo xam ci oto yi moo xam ci sareet yi benn sareet mën naa daw ci ab dëkk waaye dañ koy organise dañ ko war a organiser limiter ko di ko wutal ay ay carte di former waa ji maanaam fexe ba mu am li ñuy wax carte conseiller fexe ba muy am kataja fexe ba muy am gilet ñu koy defal enquête de moralité parce que nit ki mënoo ñëw rek gis ne jékki-jékki rek jënd sab sareet man dama ko li may wax dama ko gis jënd sab sareet teg ko ci kii bi di dawal fekk yow yaa ngi yore problème xel am na ci am na ci ñoo xam ne nag may déggal ci wax ji waaye mënuñoo wax am na ñoo xam duñu dégg kooku waroo ko jox muy transporter ay nit léegi nag bu amoon nga xam bala ngaa am tey jii carte bi da ngay dem mairie wala mu sàkk benn kuréel boo xam fa ngay dem ñu saytu la ba xam ne yow man war nga ko mën a am ñu jox la carte bi ba pare saret bi ñu numéroté ko ba pare limité saret yi wax leen ne temps de saret ñoom ñoo war a daw ci ñiy def transport temps de saret ñoo war a daw ci yi def euh, yóbbu bagage te yooyu yëpp loolu lépp mën naa am soo jógee ci loolu mooy xale bu ndaw bi ci nekk boroom dëkk bi ci boppam moo dafa bëgg nit ñi jàng am xam-xam mais xale boo xam ne très douze ans la am wala nangam boo ko bàyyee muy dawal saret ba àgg ci benn âge bi ban ban xam-xam lay am du mën a jàng deful menuisier deful menuisier métallique jàngul jàngul alxuraan jàngul français léegi kooku dundam saret du maam li ñu mën a wax mooy du métier nit ñaa ngi ci faj nag seen ay ay kii waaye mën nañ koo gën a defaral ba ba ba nga xam ne ñoom dañ leen di teg ci ay conditions yu leer yu baax ñuy verser di fay de mën nañoo dem sax ba di leen ba ba planifier leen ba nga xam ne tey seen liggéey boobu ñu xam moom la liggéey ñu nekk ci xeebaluñu ko mën nañoo dem ba ci am ay te loolu organisation la laaj nga xam ne dañ naan la ñoom ñoo moom cité yii ñoom ñoo moom lii ñoom ñoo moom lii jàppale leen ba nga xam ne tey suñ ci jógee ak ëllëg si biir mën nañoo am loo xam ne nii mën nañ cee yor seen i bokk beneen bi mooy transport oto yi. moom ku dugg ci Touba da nga gis ne tataa yeeg Mbàkke Touba yi ñoom ñëpp ku ci nekk nu la neex ngay def nu la neex ngay doxalee maanaam ba ci riim yi daw ci kii nu la neex oto yi am na ci yoo xam amuñu kayit ñeneen ñi des amuñu euh, ab yar amuñu yaru maanaam di du war a dëppoo ak dëkk bi des na par exemple tey dugg naa man ci tataa mu taxaw taxaw taxaw taxaw lu yàgg départ. mel ni kuy bëgg a rey nit ñi mu ne heure day waaj a jeex li ne woon ci client yi di ko demandé pour wàcc ci biir ñu bëri la ñëpp da leen dépensé ñëpp daa rombule fam leen waroon wàcc wax mu ne heure day ba ca arrêt ba mu taxaw nga xam ne am na ci ñoo xam ne dañoo obligé jëlaat paas paasaat xam nga léegi nan ngay waxee ne Touba dañ fiy tere dañ fiy tere musique mais kiy dawal ki nekk ci réservoir bi jël ab MPM bu teg tugg dugal fii di teg ay Youssou Nduuram mbaa mi teg nangam ah taximaan bi di ko def keneen di ko def te yooyu dañ koo bind mu ngi ci boo demee ci ah, am na sax ci jamono suñu saal foo xam këyit boo xam boo koy taf da nga ko cee gis musique déjà nekk cigarette nekk ci tux nekk ci leneen nga daga daganal lii bàyyi lii pourtant mag Sall bi mu waxee ne pré état bi mu waxee ne nañ nañ takk masque yi ak ministre bi police bis bi nga gis leen ñu wàcc te léegi ñoom sëñ bi ñu ñëw dañoo fekk ndigalul sëñ bi mu nekk fi loolu moom état yi ñoo ko moom moo tax li ñu war a wur ñoo dox ñaari tànk ni ñu bëgg a doxalee euh, ndigalul état bi lañu ñu war a doxalee ndigal bi nga xam ne maanaam oto yi ñu leen jox yi ñu leen jëndalaat ah, man loolu moom man amu ci bu dee en tant que man maam Thierno maanaam yëpp baax na parce que boo amee oto yi euh, distance dafa sori lay te ñoom dañ doon jàmbat ay oto ne amuñu ko te bu ñu defee seen liggéey buñ leen joxee oto dana leen yombalal ñu def seen ay déplacement pour dem euh, nit ñeet buñ leen recruter dana tax ñi fa nekkoon xëy na gën a féete mag wala ñu yàgg fi wala yu demee noonu euh, dinañ am ñeneen ñu leen di gën di leen jàppale ci liggéey bi euh, beneen bi ci des mooy dana créer emploi ndax dana tax xale yu bëri yu nekkoon bëgg mën a dugg ci police bi dem dugg ci police bi loolu moom amuñu ci lenn loo xam ne liñ koy rafet wante ñoom it bu ñu leen joxee ay oto jox leen li nga xam ne moom la leen état war lool ngir yàlla na ñuy gën a dimbali ak parce que askan wi dafa ñu de maanaam ñu fay la salaire nga bëgg a taxawaat ci tali bi di récolter waat loolu correction bu bon la ki koy def day def day def correction ki ñu koy def day def correction te loolu baaxut ci am réew day yàq ab dëkk parce que day tax day dem ba maanaam nit ki su bëggee defati dara du ko jaar fu mu ko war a jaar day wax naa def nangam rek pour jot loolu. te loolu wal maam li may wax nii pour ci sante beeg ci ci euh, police yeeg ak képp koo xam ne rek yaa ngi jot salaire état da ngaa war a xam ne ëllëg si biir dana jot nga lal basi dana ñëw nga laloo sa ndajoor bi xam ne liñ la doon fay moom moom waaye lii lu mu neex neex neex ak lu mu bëri bari bëri day mujj naax saay rek te jël ko di ko dundale sa njaboot sax mën naa dem ba indi la yeneen jafe-jafe maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di jaajëfal sa caméraman bi di wax ne lu luñ fi wax rek lu ñu fi wax rek xam ne bëgg lu ak defar la rek di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi seetaan vidéo bi ñëpp jërë ngeen jëf